Ibrahima mu ne sëriñ boobu ma la wax aw saafam yi ne la kii mooy sëriñ mu ne soo ko gisee nag kooku jox ko sa bopp mais bul jéemati dara nag bul ko waxati nii la bul ko waxati naa la melal ni néew ci loxo ki koy sang néew du wax ndox mi dafa sedd du wax bomboo fii du wax defal ma saabu bee du wax sa njàmpe gi dafa ñaas du wax jàllar bi ma du wax setaguma du wax sedd naa du wax sonn naa bu yëngatoo yow la bu jàllal bi koo yow la fu ndox laal yow la fuñ bomb yow la fuñ jàll noo ba am jeex taalibe bi soxla yàlla su ñëwee ci sëriñ bi noonu la moo tax chéri si moom dafa waxoon ne sëriñ boo gis ay kawteefam soo gisut kawteef yii ci sëriñ mu ne jàppal ne du sëriñ jàppal ne kooku daal bakkanam moo koy oman xanaa ku bakkanam di oman nag ku soxla yàlla du fa dem mu ne su fekkee ne kooku amut xam-xamab zaahir am xam-xamab baatin mu ne kooku tegal fale rek nga jàng ko kajj muy wéy du la jariñ dara sëriñ bi ngay dem ci moom waroo koo fekk mu mel ni xaal xaal day verti ci kaw ba ñëpp gis ko nga xar mu xonq ci biir sëriñ du am melokaan yooyu ñaari sëriñ dañoo bokk jàngandoor ci benn sëriñ yaroo ndoor fa ci yàlla ba jariñu ñoom ñaar ñëpp ku nekk dem sanc dëkk am say taalibe kii yàlla baaxe ko mu tabax jumaam ju rëy am étage am am warwaayam taalibe yi bëri àddiyee ji di bëri muy sol drap yu rafet di kaalawu kaala yu rafet di génn di wax ak nit ñi keneen ka nekk ca digg àll ba dana bay ba dee bala ñoo am ñeneen goo xam ne gerte gi rënd bi sax xal naa manqué mbuum mi dafay mànke gerte nga xam ne mbuumam ñogg la tudd mbuumam ñogg ni mbuum mi di jonkoonee ci kaw cere ji ne ñogg ñoo gaaral ci kaw nga di ko xëcc mu di la xëcc ndax manque rënd loola lay lekk mu dajale lim am daal di koy jox ñenn ñi mag ci taalibeem yi ne leen dem leen ci sëriñ diw ngeen joxal ma ko àddiyee ji ne maa ngi koy ziyaara ngeen wax ko ne ko na ma ñaanal te na ma dénk ñu daal di dem toog ba gis sëriñ bi xëy nañ di xaar ba ngoon ñu door a gis sëriñ bi bi serigne bi genné ñu gis fax-faxa ji draa ji niñ ko gomé ak ñi ko dar bam mu ñu tégal ko pilian bi mu ki fété ndey jor di upp ki fété chamoy di upp ñu ñew ramba ci ronam ñu ne ko serigne diw mo ñu yoni moy suñu wasila mo ne won nañ la jox adé ji mu ne nga ñaanal ko yalla té nga digal ko mu ne yalla yalla barkel ko té jox ko càkkuteefam su ngeen démé ngeen ne ko nak lima koy digal ne ko mu wacc mu wacc adina ñu genn ba ci biti ñu ne ki mo sof waaye kii am étage am jumaa ay ñaari ponk la ko tiim di ko ëpp ñun suñ sëriñ a ngi dudd dëddu àddina ñëw dëkk ci digg àll bi ak néegi ñax buy senn di julli ci asi njàkka su ndaw jàngale rek ci la nekk ak ñun ak jaamu yàlla amul lu mu koy digal naan ko ne ko mu dëddu àddina loolu de bu ñu demee bu ñu ko wax sëriñ bi ñu daal di ñëw daal di toog sëriñ bi ne leen jox ngeen ko àddiyee jin ñu ne waaw wax ngeen ko ne mu ñaanal ma mu ne ñaanal na la sa càkkuteef yàlla jox la ko mu ne yàlla na ñaanam waxoon naa leen ngeen wax ko tam mu digal ma ñu ne ah ñu ne lim ñu digal moom daanaka jaru laa wax mu ne lu ma wax ñu ne dafa wax ne nga dëddu àddina mu yëngal bopp bi ne wax na dëgg de moom yàlla daf koo jox àddina waaye yoonam nekku ci faalewut loolu yàlla jox yàlla ko ko jox waaye faalewut man nag yàlla xañ ma ko te loolu rekk nekk ci sama xol bi gis nga li ma nekk ak yéen ci àll bi yëpp loola moo am rek laa bëgg xam nga kon sëriñ bi melokaan wi mu wane du moom kooku boo fa toogee jikkoom ji rek la lay walla parce que xol bu dëkk ci yootu yóotu àddina te nit ñi gëm ne ci yàlla lay yóotu yàlla du ko uyu mukk su ko defee mu dëkk ci miskinam googu rek nag su taxutoo nag taalibe lañ dem foofa moom mu seede wax na dëgg konoon ñoom duñ xam ne seen sëriñ ci loolu la nekk dañ fay def seen dund bi ba seen dund bi jeex ñuy wéy ci walaakaana ku topp ca ñoom di wéy ci walaakaana parce que dañuy xemmeem àddina àddina la ñuy kër-këril te du leen wuy si parce que fi ñu koy jaaree baaxut àddina boo ko soxlaa te bëgg mu wuy si la ngay wuy ji àddina àddina jox la boppam mbaa nga wuy ji yàlla te sa yoon nekkut ci àddina yàlla jox la ko te doo ko soxla kooku boobu sëriñ xaal la xaal dafa verte ci kaw ne gaa yi maa ngi je suis propre waaye xonq curru ci biir parce que bakkan bi yépp àddina rek la xemem waaye ku war a joxe du denc ku war a joxe du denc xam nga yónnant bi su toogee di joxe ba li mu yore woon jeex jaabir ñëw génnee mi mille dirham jox ko ko yónnant bi di séddale di séddale ba mille dirham yi jeex ci tàng-tàng bi te këram ci ntàkkut fa am bu ñëw daal ne ko yàlla jox ngay séddale jox ma ci sama wàll mu ne ko toogal lu yàlla indi ma jox la Omar jóg ne ko sang bi yow da nga am njaboot waxal nit ñi ne da am njaboot yow lu ñu la jox nga séddale ko ma wax kii nga naan ko toogal xaar lu yàlla indi nga jël mu muuñ daal di ne ko looloo tax yàlla wàccee ma fi xam nga lu tax yàlla wàccee ko fi joxe joxe xam-xam joxe jikko ju rafet joxe yar joxe teggiin joxe alal du denc warta denc mu tax Cheikh Ibrahima Niass amul compte te lu nekk di jaar ci loxoom lu nekk di jaar ci loxoom mais du ko téye su ñëwee mu jàll kooku nag su ne damaa dëddu àddina wér na parce que àddina ñëw na ci moom mais moo ko téyewu mais bu solo jotee bu soloo nga xam ne kii moom xam na luy taar yàlla su dugg ci oto jotee bu duggee ci oto nga xam ne kii xam na luy taar yàlla mais dara yàqalu ko nelaw dara yàqalu ko nelaw xanaa bëgg nit ñi baax lu rek ko yàqal nelaw Cheikh na Ahmada Tidiane mu ne da ngaa bëgg xam ban sëriñ moo mën a yóbbu ko waaw mu ne la mooy sëriñ boo xam ne yàlla teggil na ko kiiraay yi jaar digganteem ak boromam yépp Cheikh na Ahmada Tidiane hmm. mu ne sëriñ bi mat sëriñ mooy koo xam ne rufia anhul xijab ujub wala alxijaab bépp kiiraay buy jaar diggante jaam bi ak boromam dindil nañ ko ko Cheikh Tidiane mu voilà la porte buntu baa yàlla may ko janoog jëmmi yàlla ji Cheikh na Ahmad Tidiane mooy wax dafa am kamalu nazra ila zaati janoog jëmmi yàlla gu mat sëkk janoog jëmmi yàlla su matee ñaar dootuñ fa nekk ngeen baal ma su ëppee janoog jëmm mais janoog gu ànd ak xol bi doyloo ne li ma janoot la seytaane naxu ma parce que dama am foo xam ne soo fa yeggee seytaane dootu fa nekkati kon loo janoot rek kenn melalut sa bët yi mbir mi daal mu ne la soo ko bëggee xam li njëkk mooy muhaadara da ngay teewlu nag yàlla nga soxla da ngay teewlu soo demee ba loolu nag soo ko bëggee xam mooy mu taalaa mu taalaatal xaqaayiqi min wara istitrin kasifin day am nag rideau bu jaar sa diggante ak moom départ naa sëñ Mouhamad damaa soxla yàlla man gis naa ne Mouhamad mii dog na xijaab yi xam na li feeñ xam na li nëbbu nekk na kaamilul irfaani nekk na imaam nekk na saalix ma ñëw ne ko damaa bëgg dem mënta am istixdaaru nafsi ci yàlla du ma dem mënumaa toog foofu sama xel mi ma def ko ca terrain football wala sama xel mi ma def ko ca làmb ja ba nga xam ne waxtu wi muy wax naan maa ngi naan ku ku daane ci làmb ja diw ak diw de tey lañu war a bari kuy daane kon soo li la tax a jóg li la ñor danga ci war a am ak lu bu boobaa nag léegi sa digganteeg yàlla benn rido rido fi des mu caché fa nag soo ko amee mooy rideau bi effacé nañ ko loo am jàkkaarloo kon léegi mushahada jàll si nga ci mushahada yaa ngi janoo ak moom léegi nag beneen rideau fii mooy yow yaay yow moom mooy moom yow yaay yow mooy moom mooy moom te bi nga bëgg moo gën a rëy boobu Cheikh Tidiane ne boobu doyut étape de transition la rek dafa am foo soxla départ nga foog nga jaar ci yooyu danga jaar ci muhaadara da nga jaar ci mukaashafa da nga door a jàll nag ci mushahada nga daal di janoo nag ak li nga xam ne yow moom nga soxla woon dafa yëpp foofu parce que moom moo nanguwut nga toog mu toog nga di ko xool mu di la xool mu mel ni ñaara am moo tax foofa soo fa toogee du yàgg mu aaya na mooy am dangay ngay doon jëmmam ji daf lay def jëmmam ji dafa yee sa nelaw gi nga mën a xam ne li baaraam doon ci Muhammad moom nga doon ci li nga soxla woon ki ngay seet mooy yow ku mënul loolu Cheikh na Ahmada Tidiane mën a doo sëriñ bu ñu war a topp ci yàlla mën nañ laa topp ci chariatu mën nga li ci téere yi xam nga nu ñuy jullee xam nga nu ñuy ooree xam nga nu ñuy takkee sëy bu yàqoo xam nga ni ñuy defaree bu lii la mel naw ahkaam yi xam nga leen nit ak sharia nga nañ la topp ci loolu waaye jumbu la ci yàlla jumbu la ci yàlla loolu moom kan ko soxlaa ci moom daf laa war a mën a def ni nguru di def nguru dafay force sax dugg ak moom ci biir génn def ko nguru nguru sax lay dugg ak moom ci biir génn sànni ko ci bitim muy nguru ni moom moo tax bàyyi daf lay fekk jolof ne la cas def la bàyyi fekk la ibadan ne la cas def la bàyyi fekk la Chine ne la cas def la bàyyi fekk la États-Unis ne la cas def la bàyyi fekk la Bergamo ne la cas def la bàyyi fekk la Lecco ne la cas def la bàyyi su ko defee bàyyi yi bëri te kenn amul ku benn bàyyi loolu mooy mu aayana daf lay daf lay wann ñaar dootu fa nekk mu aayana googu nag soo fa yeggee xayroo xayri ya dafa tut loolu la ñuy tuddee saxku wala maxku wala tamsu te yépp xam nga lu muy firi mooy raaf rek effacé gis nga baat yu rëy yooyu xam nga lu muy firi mooy nekkatut su ma jëlee crayon dal di koy bind benn alif ci kayit gi su ma ne su ma ne nit lii lan la bu loo may wax alif su ma ko effacé anamu du bindoon nañu alif alifan fa nag waaye nekkatu fa ci zaahir parce que baati na ko wan alif moom am na te dootu ñàkk moo tax lu effacé wu ci sa bët yi la effacé wu mais mi ngi fi. wala sa profond. marhaban bi Cheikh Tidiane amina bil qudumi lil kawni fi antumu asyaqi yéen waa Niassène antumu asyaqi wasaari ka faqi yéen lay waxal de yéen lay waxal yéen lay waxal de. ثم منكم أنتم أسياني يوا نسم أنتم أسياني وساري كفاخي أنتم إلا يقولون جميع الماسكين بحبليا دهق من الله يكذب ربيا وجوب الفيا في المعارف لم ترم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 أناه أناه إلى لا لا أناه أناه إلى لا لا إله إلا الله إلا الله أناه أناه صفاء ولا معه góor safaaun wala maaun waluqun wala hawal wa nuurun wala naga wa ruuhun wala jismun jallal ya mahbuubu حقا وقال لي أبا الحام عبد الله ادخلي حضرة لسانا وبالنار إذا نحن منا من بذل نفرة سواء علينا ما يموت وما يحيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله واللو في ثانيه تنافت الله ليس قرب المكان فافهم مقالي واتل في شأنه دنا فتدلى ليس قرب المكان فافهم مقالي مستهل في الله أين وكيف وسمع أمره أي إزدهار

Allah